alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabii rahma wa kaashifi lgumma wa shafici l umma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi l aimma man tabiahum bi ihsanin ila yawmi alqiyama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 ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen ci seen tafsirul quran bi ngeen baaxoo am bët bu set ci waxtu wi ànd ci ak leer ak jamono rajo télévision bu wal fajri al oustaz Hassan Diouf alxaaji Darame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 كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصدة في مهتده بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم تبارك ci aayaat yooyu mbokk mu tedd mi doon jàng maam Cheikh Diop yal na yàlla wàccee barkeeb alquran sa kaw wàccee ko ci ñun ñi ñëpp wàccee ko ci say waajur ak sëriñ daara bi def ayaat yi ci sa dënn wàccee ko ci àdduna bi yëpp fu ñu nekk yàlla mën na ko ak barkeb alquran yàlla boole ko sotti ñu ko ñun ñëpp li mu doon jàng mooy suuratul humaza saar la woo xam ne makka la wàcci soo jëlee saar wi juróom ñeenti aaya la saar wi fanweeri baat la téeméeri xaraf ak fanweer la saar wi nag bi aleeg alquran mi ngi wàcci gannaaw suratul qiyaama waaye toftale gi am ci moom moo tax ci dégg-dégg ak yonentu beeg jàngaleem ne nañ ko dugal ci gannaaw suratul asri ndax kat wal asri yàlla da cee gëñoon ne nit ñi perte nañ ne wal asri inal insana la fi xusri ñu ne ñëpp perte nañ tiit ba saar woowa di jeex mu tofal ci liy wane nag mandargaay perte mandarga yoo xam ne ku ca ne rek sa dund gi perte ñu ne ko loola lan la mu ne mooy waylun li kulli hummazatin lummasa képp koo xam ne dangay ngay ayibal nit ñi buñ fi nekkut ci sa làmmeñ di leen jëw yow sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na koo xam ne tamit da ngay ayibal nit ñi buñ fi nekkee ci say bët di leen piis di piis sa moromam gor ki sa gor kooku mooy lumma sa su boobaa ku def loola perte la ñetteel ba tamit koo xam ne da ngay dagale alal rek di takk ko def ci ay compte mbaa ngay dugal ci ay coffre mbaa nga koy def ci ay tabax yu dul jeex yoo xam ne doo ca dëkkee dagale alal rek bàyyi nit ñi ñuy sonn nga yaakaar ne sa alal jooje man na laa tere dee yàlla nee na perte nga moo tax mu ne maanaam moo tax mu ne alladi jamaa maalan wa addadahu yaxsibu anna maalahu axladahu perte gaa tax nag mu ne kàlla la yumbatana fi xutama ku melokaanu ñetti melokaan yi di jëw nit ñi buñ fi newut kooku mooy humma sa nga xam ne moom la Waliid ibnu Mugiira hammaazin mashaa'in bi namiim waaye tamit koo xam ne tamit da ngay jëw nit ñi ci say manière buñ fi nekkee kooku mooy lumma sa wala talmisu anfusakum wax na ko ci beneen aaya su ko defee wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati wax na ko ci yeneen aaya moo tax ñenn ñi bañ ne benn la ñu ne déedéet du benn allamsu ak hamsu nekkuñu benn lamsu mooy jëw nit ñi buñ fi teewee ci sa la buñ fi teewut ci sa làmmeñ lamsu mooy jëw nit ñi buñ fi teewee ci say bët ñaar nag kon nag yàlla ba mel nit ñi perte nañ gëñ ko ñëpp tiit mu ne nag liy wane perte mooy ku melokaanoo ñetti melokaan yii su ko defee tamit nag kon loolu lay saar wi di jàngale saar wi nag ñu ne mi ngi wàcc ci umayatum nu xalaf ñii ne Asim nu Waa'il ñii ne Axnas ndax ñoom dañ daan jëw yonantu bi sallallahu alayhi bu fi yonantu bi nekku rek ñiy yàq deram ci seen làmmeñ donte deram ba yàquwut waaye ñiy yàqoo ñoom ca bu fi yonantu bi nexee nag ak nit ñi ñu wër leen ñiy piisante ci seeni biir am na nit ñu sew ñu mel noona ne boo toogee nga toog rek mu ngóobi la wala mu jël maanaam loxoom ya am kum joxoñ fekk yéen ñaar am na ko dox ci seen diggante moom xamu ca dara loolu melokaanoo nit ku sew la melokaanoo nit ku manki la melokaanoo nit ku bon la kon kum nekkoon ci sa jikko na nga ko jéem a bàyyi ndax yàlla nee na ku nekk ca loola ba dee bàyyiwuloo ko am na xur wu lay xaar ci safara moo tax mu ne waylun moom la ubbee saar wi kon nañ ci bàyyi xel moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd buur bi arrahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira waylun xur wa ca safara li kulli hummazatin ñeexal na képp koo xam ne ayibalaa koon la nit ñi ci làmmeñam ci fàddu lu mësatin kay ay balaakoon nit ñi ci teewaay ci ay bëtam kookaay kan mu ne allati mooy nguur sa nga xam ne jamaa dagale na maalan al wa addadahoo mu bari lum koy konte wa addadahoo mu takk ko wa addadahoo mu kadul ko ngir jamono ju ñëw ca kanamam def ko dara nekku ca waaye li ko yàq mooy yaxsabu dafa njortu anna maalahu naka alalam jooja mu dajale axladahoo dana béelal ko ku yaakaar ni alal dana la fi tax a des sa lépp yàqu na kàllaa sama borom ne nim yaakaaree mbir mi demee wut ko de kàllaa bërig alal taxut a béel la basar na def na sànni ko moom mooma fil xutamati xutama ca dara kaat yala day mooñe te ciri doom aadama comme ni boo jëlee dugub dugal ko ci machine ab wal nam koy nam koy mokkale buñ ca dugalee xéeféer yi noonu lay mokkalee seen yax ak seen cër ya ko ba mokk rub moo tax yàlla de ko xutama ma ngi koy firine ne wa ma adraka mal xutamatu ana lëf lu màgg lan moo la xamal luy xutama mu ne moom de naaru laay safara yàlla la al muuqadatu ba de buñ taxal allati safara wa nga xam ne tattaliu dana yër dana lakk alal afidati ca xol ya dana lakk jëmm yi ba lakkaa innaha naka moom safara woowa di xutama musadatun lu ñu tëj la alayhim ca xéeféer ya cay dugg buñ ca duggee nag fii amadin mbir muñ leen xeew ci ay keno mu maddati yede yu ñu tàllal bu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu yaakaar naa nag mbeddam nit moo gën a garaaw mbeddam mbaam kon jëw lu bëree la ci ji jamono dafa mel ni dafa saf suukar ba kenn ku ne ma ngay jéem a xam lam saf su boobaa nag kon suñ bañee mucc suñ bëggee mucc ci mbugalam yàlla mii nañ bàyyi jëw nit ñi yàq seen der yi ne la sa bopp doy say ayib walis ayibi keneen ku ñuy wax ci moom lu ñaaw artul ñooña suñu bañee nga jug bàyyi leen fa waaye bu ñuy wax nit ci lu ñaaw nga déglu ko yàq kay jëw yéen a xem bàkkaar loolu la yonent bi wax te loolu moo bari waaye da ngay toog sax ñu yàq deru nit nga koy yokkal xanaa kay loolu day door a feeñ rek man kay li ma xam ci moom nangam ak nangam ak nangam kon tabaarakallaahu nit ñi ku leen topp ñu yóbbu la safara waaw te yonent bi waxoon na ko nee na nit la ci ëpp mooy seen ngóobitu làmmeñ wa hal yakubu nnaasa fi nnaari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim mu ne li ëpp ci nit ñi seen ngóobitu làmmeñ moo leen di dugal safara wax loo war ta wax rek loolu rek ci ngay nekk bala nga xamoon ci lu baax lépp yàqu ñu mujj ki ña nga doon wax par ñu topp la nga safara yàlla nañ ci yàlla musal saar wi ciy teg nag mooy suratul fiili soo ko doon jël ci toftaleeg alquran mi ngi wàcc gannaaw kaafiruna waaye nag yonantu bi ci njàngale sallallahu alayhi wa sallama di ci jàngale ba mu waxee perte nit ki perte ngir topp alalam foog ne mën na koo béelal fuuyloo ko ba mu ëpploo ko nit loolu lay saar wi di jàngale moo dal abrahata moo tax yàlla ba mu waxe yaxsibu anna maalahu axladahu fa mel ni loola ci abraha la wàcc moo tax mu tofal ci loolu yonent bi ne nañ ko teg ci gannaaw saar wi ñu jàng léegi ndax xisa bu gudd la muy alam tara kayfa faala rabbuka yàlla danañ ci jàngale ne mbooleem ku yàlla jox pouvoir nga nekk dictateur da nga torox yàlla bindu nit ñi pour ñu toroxal leen tax ku jóg ngir toroxal nit ñi sa toroxtaane taxaw na teew na abraha yàlla jox na ko pouvoir mu jug ngir bëgg a toroxal nit ñi xoolal fi yàlla mu jëg moom moom mii abraha euh, dafa amoon buur bu nekkoon yaman moo ebaloon ay soldaar ngi dem Éthiopie di xeex ak ñoom ba mu demee mu yebal ku ñu tuddee euh, maanaam arbaat mu not leen not ca ñu bari abraha nag nekk ku am doole mënulu ko dara presque population ba xaaj ñaari xaaj ñii ànd ak arbaat ñii ànd ak abraha ñoom ñaar ñooñu nag ba ñu jàmmaar looxee abraha not arbaat ray ko ñi mujj samp ko foofa ca Éthiopie mu nekk fa maanaam gouverneur ñeel waa yaman mais ni ku leen fa nekkal am doole lool nag mu toog bis doole ji ko yàlla jayak pouvoir beeg alal ji ndax li ñuy wax ku ëpp nit alal baaxut ci moom da koy xëppal rek ndomba tànk baaxut ci moom da koy sànk rek daraja ju ëpp baaxul mu toog nag gis nit ñi di ko romb takk ay gëléem ñu ne fuñ jëm ñu ne kaaba ga la ñuy xaji dafa yonent yàlla ibrahima tabaxoon muy kaabatal musharrafa mu ne lu tax ñu koy aji ñu wax leen ngëneel ya fa ne mu ne man danaa tabax kaaba gu ko dàq fii ci sanaa u yaman su ko defee dem mabbi kaaba googa nit ña ñëw di aj fii kaaba goo juddu sa maam yi juddu xëy fekk ko fa kamoolu ko fa teg nga ne danga ko fi jëlee yaakaar naa yaa fi jóge ko mu bind buuru yaman ba wax ko ko ne ko maa ngi lay tabaxal kaaba goo xam ne amul benn tabax bu ko gën a foor tey ci kaw suuf jël alal ja population ba yëpp def ko ca mu demee ba pare nag ah kaaba ga pare ci nim jàppee na mel na ko a benn arabi yu ibnu kinaanata dégg ko moom mer dama dem ba ca kaabak abraha ga mu kabine fa ci biir ga jël kabine ya riix ko ci biti pour ñaawal abraha ñu wax ko ko nag mu ne ku def loolu ñu ne ko benn waa joo xam ne daal xam naa ci xaram bala dëkk rek moo ko def mu ne dama doon waaj pour toji kaaba ga mais bis gannaaw suba laay dem yónnee buur ba ne na ko yónnee ñay war a war buuru yaman bi mu yónnee ko ñay woo xam ne turam mooy Mahmoud kunyatoo mooy Abul Abbas mu yéeg ca nag ak ñay ya topp ko gàngoor ga muy dem am na buur bu ko dagaale muy su nawfar mu not ñam àndatoon ak ba jàpp ko jaam mu ne ko bu ma rey nga bàyyi ma fi moom ma gënal mu téye ko demaat ba ci kanam amaat ñu ko traversé waat eh, su ko defee tamit mu jàppaat leen jaam waaye ca lay ñëw ba yegg si taayif ñooñu génn ne ko yow lañ ànd ak taayif gi ci màkka su ko defee ñi boole koog abu arxam euh, arxal pour mu war ko wan yoonu màkka wa pour mu war a dem toji kaaba ga dem nag ba ci benn xuur bu ñu tuddee waadil muxammas mu kampe fa nag toog fa nag joxe ndigal ne mbooleem gàtti nit ñi ci gëlëm yi xar yeeg ba yi luñ gis rek nañ indi ca lañ dem nag ba jàppale ñaari téeméeri gëlëm abdul muttalib mii maami sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama fekk yónni na xunaatatu ne ko demal ca dëkk ba nga laaj seen sang nga xamal leen ko ne maa ngi ñëw xeex andiwut ma damay ci kaaba gi rek ñibbi ah bañ demee ñu ne ko abdul muttalib mooy sangu dëkk bi mu wax ak moom abdul muttalib ne ko man damaa am soxla ci moom dama koo bëgg a gis dégg naa jàpp na samay gàtt moom moom ñi ànd ñëw ba ci abraha abraha bi mu ko gisee nag ñi présenté ko ko ni mu nekkee sang mu tiit fonk ko xormal ko waaye rëy naa toog ak moom ci benn gàngunaay gi te tamit rëy la toogloo ko ci gàngunaay gi toog ci suuf mu mujj na ko nañ toog ci suuf ñoom ñaar ñëpp ñu bokk toog ci suuf bañ nag mu wax ki làpp ko ne ko laajal ma ko luy mu laaj ko mu ne ko luy sa soxla mu ne mu ne moom daal liy soxlaam ñaar téeméeri gëlëmam yi nga jàpp moom la ba pour ñëw nga libéré ko ko mu wax waa ji ne ko wax ko ne ko bi ma ko gisee fonkoon naa ko xormaal ko foog ne ku tedd la ku màgg a màgg la waaye bi mu addoo xeet naa ko kaaba gi ma bëgg a toj ci la tedd nga am nekk ak tedd ngaay ay maamam ak i baayam laajut ma ci mbiram kaaba ga dara di ma laaj problème mu ay gàttam yu ñàkk solo yooyu mu wax ka koy làppatoo ne ko wax ko ne ko nit du laaj lu moomut man kaaba gi sama yoon nekkul ci xam na borom li ma moom mooy sama gàtt yi laa bëgg nga jox ma ko rek ma dem ñi inna lil bayti rabban mu jox ko gàttam ya foofa nag Abraha préparé na day dem ñay wa daal muy Mahmoud bu waree rek fu ko jubale Saam Yaman mu nangoo dem waaye buñ ko jubalee ca Kaaba ga rek du nangoo dem buñ dóor dóor du nangoo dem foofa rek nag tabaarakallaahu la yàlla ebal ay picc ci xisa bu gudd aa picc ya fekk ko fa picc mu ci nekk ñetti doj gay xame ñaari doj ya danga koy téye ci sa ñaari ci sa ñaar benn doj ba danga koy ŋànk ci sa gémmañ ñu ñëw rek commencé leen nag roose leen doj ya ñoom ñoo nga ñëpp ñi tasaaroo daw ñu bari dee abraha nag moom yàlla musal na ko deewul ca saasa moom yàlla da ko sadd feebar feebar boo xam ne bët bu set rek ay cëram di dagg boole ko di néewi cër yay dagg bu demee ba ci kanam benn baaraam dagg demaat ba ci kanam nopp ya dagg demaat ba ci kanam maanaam baaraam yi tànk yay dagg demaat ba ci kanam maanaam ba dagg tànk yay dagg par cër ba bañ koy yóbbu muy ñibbi Éthiopie dafa mel ni picc ngir tuuti mën na kenn xamatul lu muy niru yàlla noonu la xalagee ki jugoon ne day fay leer ak yàlla moo tax nag kon taal yi yàlla taal ku ko bëgg a fay yaay fay de taxal yi yàlla taal ko ko fi bëgg a jëlee yaa fiy jëlee ku ko fi bëgg a jëlee yaa fiy jógee ko waaye loolu moom kenn mënu ko dar yàlla na sadd ci lépp jaarale ko ci abraham yi li mu bëggoon a fu mujj nag xisa bu ba gudd la dama koo tënk talxiis ko su ko defee nag xisa booba yëpp yàlla tënk ci saar wi ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil yi saar wi juróomi aaya la soo ko jëlee fanweeri baat la juróom-ñeent fukki xaraf la loolu la saar wi ëmb ci ay baat ci ay ayaat ci ay xuruuf yàlla di ci nettali eh, ni yàlla alagee abraham mbooloo xam ma àndoon ak moom moo tax sama borom ne alam tara xanaa yeggut sa xam yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kayfa faala naka la def rabbuka borom sa bi ashaabil fiili te mooy abrahata alam ya jaxal ndax dafa defut kayduhum seen pexe ma fii tadlilin ci sooy wa arsala mu hebal alayhim waral leen tayran ay njanaaw abaabila yu nekk mbooloo su ko defee tarmihim mbir moom danañu sànni leen bi hijaaratin ci doj doj yoo xam ne min si jiilin mi ngi bàyyi ko ci banab safara fa jaalahum mu jël na leen ka asfin ñi mel ni ki ngub ma koolin ma de muñ lekk ka asfin ñi mel ni ki ab lanci ma koolin bu ñu sàqar mi li fas wi lañ ci di ko lekk wala xar mi ot nga xam ne da koo yëy ba mu mokk mu wadd ci gémmañam gi kooku mooy asfu loolu la ci namu fii wala li nga xam ne dafa naat nekk am ñax kii nekk baykat bi ñëw di ko gub di ko yóbbul kii xam ya xam nga jëlee na ko fa gub na ko ci suuf te dara desatu fa parce que yàlla nee na ba ñu sëqee ba seen doole jay leen ñi mel ni toolam ñax bu naata naat dama mujj man yàlla ma gub leen dara desetu fa wala ñu mujj mel ñax mu tooy mu benn mbaam wala fas di lekk ba mu nooy ci gémmañam gi yàbbit yay sotteeku nga xam ne dara bëggatu ko noonu lañ mujj mel fa jaalahum ka asfin maakul kon na bëgg fay fii ngay mujj nax yàlla am na fu la ju tey ni saa yuñ bëggee fay leeram nga rek mu bañ yuriduuna an yutfihu nuurallaahi bi afwaahihim wa yëballaahu illa an ma nuurahu kon loolu mooy ashaabul fiil foofu lañ mujj saar wi tegu boo jëlee ku mel ni ubay ibnu kaab dafa suuratul suratul fiil ak suratu quraychin moom benn saar la ko def amul basmala seen diggante ndax mu ne benn la mu ne ndax li muy saar bi benn xisa la xisa bi yëpp njariñ la ñeexal waa quraychin yàlla alag seen qurayshi ndax tey bu yàlla alagutoon seenam noon bi ñu dootuñ fi nekkati abraha bu pexem ya sotti woon kon li ilaa fi quraychin du amati seen booloo gaag seen tikku yañ doon def rihlata shitaayi wa sayfi dootul amati moo tax mu ne benn len kon yàlla dafa wax ne alagal naa lee seenam noon pour desal leen fi nag ma dese leen fi ngeen am xéewal alal ju dul jeexati du ngeen bay te lu ñuy bay bu ñëwee fekk ko màkka ma defal leen sécurité tamit waxuma yéen waaye rabi dëkk ba sax duñ leen rey ca kaaba ga wa amanahum min xawfin defal naa leen ñaari xéewal ataamahum min juin muy wane ne kon état bu mën a doon ci ñaar rek lay taxawee état mënul am mënul am développe mënul am développement wala ab population lu dul dañu am sécurité gannaaw bu ñu amee sécurité tamit na fekk lu ñu soxla ña ngi koy am jëggaani wuñ dara seen dudd ba ñuy dundu lépp ña ngi koy bayee ci réew ma jëggaani wuñ ko waaye réew buy jëggaani lu muy dund pour mu développer day jafe ndax ku jëggaani lu la dundal da nga lu la faj tax gars yi fu mel ku ci feebar rek ñu ne nañ ko jëggaani li garab mu jógee ko France mbaa mu dem France faju ji fa wala mu dem Amérique comme li ñuy lekk dañ koy jëgaanee foofa bu ñu feebaree foog ñu wuti garab yi ñuy jëgaanee foofa kon nag yàlla nee na réew ci ñaar rek lay taxaw ataamahum min juin wa amanahum min xawfin waaye bu fi koom-kam nekk ne gàññi te sécurité amut képp ku ne ku ne yaa ngi tiit toog ci kottu nen jàmm amut boo amee sécurité te amoo dara tamit lu muy jariñati waaye bu ñaar yi xasee am rek li nga bëgg lépp am te yàlla nee na man yàlla maa leen ko defal gannaaw bi ma alagee seen noon ba abraha pour bëgg ngeen des fi moo tax euh, Ubay ibnu Kaab def saar wi muy benn ñeen na ngeen saar wi nag ñu ci bëri moom kenn ko def nag waaye ñu ci des ñëpp dañ ne saar wi ñaar la euh, te mi ngi wàcc gannaaw suratu tiin la saar wi wàcc euh, waaye nag noon bee joxe ndigal nañ ko dugal fii lu tax ndax ko mu ci ñaari saar yi dafay tegtale teraangay Qurayshi bii dafay tegtale teraangay alagal leen seenam noon moom lañ jeexal bii day tegtale teraangaak defal leen xéewal ci sécurité ak ci alal kon ñaari njariñ yëpp ñoo ko moom moo tax maanaam euh, ñu dugal ko ci gannaaw foofu su ko defee moom saar wi mooy maanaam li ilaafi qurayshin makka dafa nekkoon dëkk bu dëkk bu beekoor yéen ña dem ci suusa gis ngeen ne suusa nanguwul mbay ay montagne la ak i xeer su ko defee nag mujj gi suñ bëggee dund ñaari tukki lañuy tukki tukki mii noor lañ koy def jëm yaman maanaam kon jamonoy sedd lañ koy def jëm yaman beneen bi ñu def ko jamonoy noor jëm maanaam saam mooy rihlata shitaa'i wa sayfi tukkeem jamonoy sedd bi yaman lañ jëm tukkeem jamonoy maanaam tàngoor wi saam lañ jëm di fa jëli alal ñaari tukki yi nag bu ñu alal danañ ci mën a dund ci diggante ñaari diggante yi buñ tukkee bii daal danañ ci mën a dund six mois tukkiwaat jëm saam dundaat ci six mois di xaaraat déwén nag ci lii lañ doon nekk nag booba nag defoon ay teqalikoo ay giir Hashim di maami Sayyiduna Muhammad moo leen dagale def leen génn giir moo tax yàlla di wax noonu ne li ilaa fi Quraysin seen ak booloo nekk benn nekk benn bolok di yëkkatee ndoor di tega ndoor ba mu ñëwee nag moom dafa yoonaloon ne suñ tukki mii suñu tukkee ñun ñi am suñu ñëwee nañ ko séddoo ñi amut ñoom ñi am dañoo séddoo ñi dem a dem ba ñi am ëppaleetu ñi amut dara kooku maami yonent moo ko njëkk yoonal ci seen famille ñu mujj naat nag barke am xéewal yu dul jeex yàlla nag ne kaay ma defal leen lu gën a yomb loola tabaxal naa leen néeg muy seen teraanga ci seen dëkk bi màggal leen borom néeg bi di ko jaamu su ngeen ca nekkee dootu leen tukkeeti nit ñey tukki di leen andil yéen daal bàyyi leen seen tukki mi rek tafa fal yaabudu rabba haazal bayti jaamu leen borom néeg bi rek borom néeg bi nga xam ne moo leen fekkoon ci xiif mu lexal leen mu fekkoon leen ci ak ragal mu defal leen sécurité su ngeen saxee demati saam dootu leen demati maanaam yaman yaakaar naa fu mu ni yaman ay dem makka fu mu ni tamit saamay dem makka yaakaar naa ne Europe ñooy dem makka ak Asie ak Amérique ak maanaam rawatina Afrique nga xam ne tey yàlla sotti na fa xeeti teraanga yu sa xel daj tey ma nga màkka kon euh, dëgg-dëgg léeg-léeg am lu la jege te li nga bëgg lépp mi ngi ci li la jege nga négliger ko bañ koo fonk bañ koo toppatoo bay wuti loo xam ne lu la sori la yàlla nag ne teraanga ji nga xam ne su ngeen ko fonkee te mooy kaaba gi man mii borom kaaba gi ngeen fonko li ngeen bëgg lépp da ngeen ko am mujj gi nag ba mujj nag ñoom ñu sax rek ci fal ya'budu rabba hadal bayti bàyyi nañ léegi nag maanaam rihlata shitaa'i wa sayfi bàyyi nañ yooyu yëpp nag léegi nit ñaay laxasi jëm ci ñoom mais ñoom jëmatuñ ci kenn kon loolu la moom la yàllay nettali laam gi ulamaaw yi dañ cee wuutee ñii dañ ne laam gi maanaam laamu taaliq la ñeen na ngeen ne laam gi laamu taajub la moo tax boo tëppee ci laam gi firi ko rek doo mën a dem moo tax ñenn ña ne laamu taxliq la boo ko bëggee firi da ngay commencé ci fal yaabudu al bayti door a door a ci li ilaa fi waaye boo ta boo déparé ci euh, boppu saar wi rek doo ko mën a firi moo tax sama borom ne fal yaabudu nañu sax dàkk ci jaamu rabba haazal bayti borom nee bii di yàlla allazi borom nee bi nga xam ne atamahum moo leen lexal min juuin ci xiif wa amanahum moo leen hóoluloo min xawfin ci ragal nañ sax ci jaamu yàlla moomu li ilaafi quraychin ngir ak tàpp waa quraychin ga su ko defee ilaafihim seen ak tàpp laa wax rexlata sitaayi ci laxas ak maanaam sedd ak noor kon dafa bëgg a wax ne xéewal yi ma leen defal li muy bëri ba bu ngeen ko bëggee lim du sotti wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuha su ngeen bonee ba santu leen ma ci maa ngi leen di ñaan waay ngeen santee ma génn xéewal gi ma leen defal te mooy kaaba gi ma leen sampal jox leen sécurité jox leen koom-koom bu ngeen ma santu ci yeneen yi ci des yëpp sant leen ma ngir loola rek loolu la bëgg a wax moo tax mu ne kon jaamu leen borom nii bi santee ko ngir xéewal yu rëy yi mu defal leen su ko defee nag euh, ndax kat euh, xéewal euh, dañuy dafa mel ni rabu àll yeew rek mooy buum buum gi mën a yeew xéewal gi la yàlla defal tamit mooy sant bu la yàlla joxee xéewal nga bëgg mu sax santal soo bëggee mu dolleeku santal waaye saa yu la jàll dafa lay xéewal sant la rek yow mooma yaa yaay ki xewi xéewal ga yàlla nag moo tax mu ne la in shakartum la azidannakum wallahi waat naa ne su ngeen ma santee ma dolli leen noppi ca noppi ca sax ga ndax loo dégg muy dolleeku dafa sax balaa dara ma a dolleeku kay day fekk la muy dolleeku nekk fa waaye bu fa nekkatul moo tax yàlla no tudd benn ba bàyyi benn ba wallahi bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye déggee nañ ci da nga ti mooy da nga da saxal la nga jox noona dolli ko la bëgg a ndax dara mënta doolee ko fekk saxut moo tax mu tudd benn bay waral benn ba su ko defee noppi ca bañuy waral la in shakartum la azidannakum su ko defee kon li ilaafi qurayshin mi ngi noonu fii nag yàlla ngi ciy wax suratul maun makka la wàcci ñenn ñene genn wàll ga makka la wàcci su ko defee ci Aasi ibnu Waa'il genn wàll ga wàcci Madina ci Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul lu ca mën a am yàlla ngi ciy nettali yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam Aasim mii nga xam ne dafa amoon ab jirim ñu ne Abu Jahlin bàyyam dee bàyyee ko jirim baak alal bu jirim ba ñëwee di ko laaj alalam rek mu bamax ko lekk alal ja kon nag aaya ji ci Abu Jahlin mais bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab képp kuñ bàyyee alali jirim na koy profité di ko lekk aaya ji dal na ci sa kaw te mooy bu la yàlla jéggalut bàyyi woo loola ba dee tuuboo ko moom borom borom alal jirim ja jéggal la nga dem safara ndax inna lazina yakuluna amwaala yataama xulman innama him naaran wa sa yaslawna sairan nag ku yàlla bàyyi ti jirim ko xalal ja muy gën di yokku Aysatu laajoon na ko yonentu bi ne ko alal alal jirim ñu yor leen yar seen bàyyi bàyyee ñu alal di koy dañ waaye bu ngeen ko tegee benn place di ca génnee asaka asaka lekk ko day mujj jeex da ngeen ciy jéem a commerce su boo koy asaka di ca lekk muy am bénéfice ba cay judd su boobaa mën ngaa def ak jirim bi li ñu tuddee xiraat ci fuqaaw yi mooy jirim bi am na alal waaye amul tànk yow am nga tànk waaye amewoo alal nga jël alal jim donnoo ci baayam di ca commerce ubbi ci magasin su ko defee boo demee ba weer wi dee ba at mi jeex wala juróom-benn weer ngeen def ragle lii jirim baa ko moom lii magasin bee moom lii yow ma cay liggéey yaa ko moom sa xàq la l'islam bañu ko su ko defee nag su demee ba déwén ñu war caa génnee asaka la ñu war a génnee asaka yëpp nga génnee ko ca waaye 10 millions la ko bàyyam bàyyi nga bàyyi ko ci banque bi at mu jot ñu génnee ca million bu ne juróomi junne bu yàggee balaa màgg alal ja jeex waaye dafa bëgg nga cay commerce waaye boo cay commerce nag yàlla nee na na nga ca teg na nga na nga ko teg ci maandu bul ca profito pour mën a am accès pour lekk waaye ah, na jéem ko ko koo toppatooxal waaye bul ca commerce pour jéem koo toppatool sa bopp du jeex am na fi ñoo xam ne tey seen euh, waajur yi dee nañ bàyyi fi nit bàyyi fi alal ñu jox ko seen rakki baay ya ñu jox ko seen nijaay ya ñu profité dem takk ca seet maa ngi dem jënd ca oto baa ngi tabax ci ay kër di ko profité lekk rek balaa jëriñ ba màgg dara dut ca desati yàlla nee na loola ngay lekk muy neex ñu la koy ay ganaar ngaa yëgut waaye safara la innama yakuluna fi butunihim naaran fekk wasa yaslawna sairan kon lu jirim yi yonentu fu muy limee bàkkaar yu mag yi balaa jeex mu tudd ca ak lu maalal yatim fa muy limee muubiqaat yi bàkkaar yi alak boromam balaa jeex mu boole ca lekk lu jirim kon moom ci muubiqaat yi la bokk waaye tamit ci kabaa'ir la bokk moom lekk alalu jirim su ko defee tamit bokk na ci muxbitaat yi yoo xam ne dafay sippi sa sa yu baax yi nga njëkkoon am lekk alalu jirim ci la bokk nga julli mu sippeeku nga xoor mu sippeeku nga aj màkk mu sippeeku nga foo ne yàlla la koy dencal fekk dara desatu fa ndax li ngay jëfandikoo kon moom lay saar yuy wax nag mu jaar ci benn xéeféer waaye ku melokaanoo melokaan yi ba tey rek yaa ngi ci biir aaya moo tax yàlla di wax yonentu bi ne ko ara ayta xanaa xéemu nga àll fii nguur sa nga xam ne yu kasibu dana weddi bi diini ca bisa fay ba te mooy asim nu waa'il fa zalika kookale àll fii mooy nguur sa nga xam ne yeddoo dana ba max al yatiima jirim bi bu ko laajee xalam rek mu ba max ko tëj buntu bi wala yaxudu du ñaax boppam waxuma la keneen ala taamil miskine ci lexel miskine ñam ci lexele ci leele ñam ci miskine kenn mënta tax maanaam ñam kooku mooy genn wàll gi wàcc màkka loolu moo tax ñu ne saara loolu mooy genn wàll gi wàcc genn wàll gi wàcc madina nag mooy fa waynun lil musallina moo tax boo demee ci tafsiru idaahul quran li ma waxoon keroog rek boo jëlee benn aaya kese ta mu amee ay mbokk nga firi ko rek moom kenn jëmale ko ci ay nit da nga leen di agressé ci turu alquran te fekk alquran agressé wut kenn waaye da ngaa war a seet yam ànd ak mbooloo yam ànd ak mbokkam ya benn bu ci nekk nga mën a xam ban mooy teguwaayam waaye jël benn benn xadis bëgg caa waaraate da dugal nit ñi safara ta fekk ñoo yow yow ma leen cee dugal yaa leen cee jiitu wala nga jël benn ayab alquran kese bëgg cee waar nit ña dana bari koo jegeel safara ta fekk yàgg koo gën a jege moo tax boo demee ci tafsir wax ne boo ne foo winu lil musallina rek xam nga moom kenn moo ànd da nga dugal ñu bari safara ko nit ñi bàyyi julli te yow xam nga li muy tekki fekk fa waylun lil musallina jim wax allazi allazina hum Ah, ah, maanaam an salaatihim saahuuna moo ko firi allazina hum an salaatihim saahuuna tamit allazina hum yuraa'uuna wa yamna'uuna al-maa'uuna moo ko firi kon ñetti aaya lañ bu ñaareel bee ko firi bu ñaareel bi bu ñetteel bi moo ko firi yow nag boo jëloon bu njëkk bi rek na fayoon lil musallina waaye ñooy xurwa ca safara ñeel na ñu julli firee ko noona ku la wax ne yàlla loolu la wax anam mbokkam ya su boobaa tamit da nga jéem a nit ñi te fekk alquran du agressé kenn kon nag yooyu dafa jar a bàyyi xel mi ngi ci namm waa ji ñuy tudd Abdullah ibnu Ubay am munaafiq la yonentu dana kàbbaar mu kabaar ca gannaawam muru koo muru koo mu sujjóot mu sujjóot fekk julliwut parce que yàlla taxul julliwut ngir yàlla dafay julli ngir nañ ko di ngistal pour bëgg ñu gis ko maa ngi nii kenn gisu ko rek mu arrière du ca nekk buñ ko généré gis rek mu feeñ waaw bu yàlla waxee ku mel noona yow meloo noona nga bëgg ko mel ñu melut noona dafay métti kon nag ku mel noonu ku ne tamit yaa ngi ci koo xam ne ni bu la nit ñi gisee nga julli bula la kenn gisul doo julli ndax léegi-léeg mbooloo mel noo xam ne buñ ne ay wa taxawal jul doo ñemee roccee ko waaye yàlla xam na ne yaa ngi ci biir mbooloo mi waaye nekkoo ca léegi-léeg mu ñemee yàlla sax nga jiital ko te yàlla xam na ne duy julli nga jiital ko muy tiitaroo jàng saar wu gudd rafetal ko lool rukkoo ya mat su jóot ya mat nga ne waajee mën a jaamu yàlla yooyu tamit baaxut kon Euh, loolu lay wax si nii ci ubay euh, ma abdullah ibnu ubay munaafiq bu mag boobu nga xam ne waxoon naa la ko kenn du yonantu bi ci mbaax bañ na ko lu ne def na ko yonantu bi ba mu feebar xam ne day dee mu na ko yonantu bi may mbubbam yonantu bi yónnee ko mbubbu mu ne ko waxuma mi njël laa mi laa wax ba mu jiital ci yaramam bi yonantu bi mbaax gaak oyof ga mu joxaat ko ba saxaaba yi mer ne ko lu tax goo jox mbub mi mu ah du ko jariñ dara ba mu ñu bi ñëw tamit war koo julli di ko jullee ba alquran ne ko waroo a jullee wala maata abadan Omar ibn ne ko doo ko fi jullee ak la ca xew lépp waaye ànd ak loolu ko dara moo tax mu ne fa waylun xur wa ca safara lil musallina ñeel na way bayi julli ñi kenn du ko firee ñuy julli lil musallina ñeel na ñuy bay julli ñi ñuy bayi julli ñooy ñan mu ne alladina mooy ña nga xam ne hum ñoom saahuuna way sàggan lañ an salaati wali seen julli ya ku sàggan wali sa julli kay julli woo rek ñoo ñaay ñan mu ne allazina mooy ñi nga xam ne hum ñoom yurauna dañuy ngistal rek wa yamnauna ñiy tere mauna njafañ-njafañ mooy luñ mën a jëriñoo jëmmu ja ca njëriñ la te jëmmu ja des fa képp ku koy tere sa moromam jullit mbaa sa moromam nit rek day tekki ne ku siis nga day tekki ne ku soxor nga sooy julli tamit melokaanoo julit nekkul ci yow booba nag bi ko saxaaba yi laajee yonentu bi ko jooge jamono mu ne leen mooy sémmañ bu la sa morom moom nit abbee sémmañ abal ko bu abalee jaasi abal ko bu la abbee kawdiir abal ko bu abbee bool yuñ koy yekkee abal ko loolu mooy maawun ci seen jooje jamono kawdir yaak cungwaar yaak yaak sémmañ yaak jaasi ya loola man ngaa jariñoo njëriñ la ba pare jëmm ja des fa lii bu la ko sa morom moom nit abbee waaye léegi nag maawun yóbbuwal na sareer nga nga àll ba yóbbuwal na sa morom moom jullit ngeen dëkk mu àbb la fas ci dugg na ca ki ñëw àbb la oto soxla bu taxaw dugg na ca ki la àbbu jakarta bi am lu muy doxi dugg na ca lépp loo xam ne nit da koy soxla ngir ki soxlaam yi teew rek mu ñëw àbb la ko su boobaa loolu si la dugg waaye yooyu yëpp nag buñ la ko àddee yow mi sàmm ko nu raw nooy sàmmee sa alal soo ca gàttañ loo mbaa nga sàggan ba jalgati am ca ci sa gàttañ loo ko waral bul fa nekk naan ko la ma abaloon nii dañuy wax ne demal nga jëndi nga fay ko suñ ko sàccee nag wala nga yow gàttañ loo la la war def nga ca nag kon dootoo ko ti ndax dañ koy dugal ci buntab amaanatu ci mazhabu ma loolu la gëm ak saafeyu abu hanifa ak ñële ñoom ñun dañ da ngaa war a fay rek ku jël ak abbu su boobaa da war a fay bu sànkoo ñoom loolu lañ gëm te nag jël abbu ñi abal la ko nga négliger ko xam nga léeg-léeg nit ki abal lay bool nga bàyyi ko fa ba mu réer foo ko teg nit ki abal la ay la ay kaw yooyu toggee nga bàyyi ko fa ba mu réer foo ko teg léeg-léeg tamit nit ki abal la sareet nga am goreadi puna ba kërëwe nga ñëw jëlee ko noonu teg jox ko ko walla mu jox la fas sonn ca doo ko jox mu lekk ci ngooñ doo ko jox dugub yooyu yëpp tamit lislaam bëgg ko kon boo abbee la nga abbee rek bu jotee nga def ko ca dañoo bëgg tamit li nga abbu na nga ko abbee nga def ko ca su fekkee tey danga ngaa abbu ne abal leen ma fas week sareet bi ma dem place sàngam wala oto beeg wala welo bi place ba nga waxoon nga ëppal distance ba waaye dara xewut dara yàquwut yokk nañ ko xayma mu nekkul luyaas nga fay ko boromam yaa waxoon ne foo jëm damay abbu foo jëm nga ne tëngéej nga far yegg mbuur nañ xayma diggante mbuur ak maanaam kii tëngéej ñaata la luyaas ba nga fay ko bu dara yàquwut mais nag bu dara yàqoo dañuy na tànnaloo boromam ci jàpp luyaas wala jàpp xayma ja loolu mooy fiqhu Maalik loolu la gëm kon ñaareel nag yàlla day nattu nit loo abbu boo ci ëppee liñ ko abbee rek yàlla nattu la ca kenn mënu ca dara kon bu buñ la abalee goreel la nga abbee rek bu jotee nga def ko ca bu jeexee nga delloo ko ànd ak ñëw baalu borom ak ñaanal ko yàlla islam bëgg waaye abbu dara tamit léeg-léeg nit ñi abbu ci ay bool ay nangam far maanaam nationalité ko àbb ko mu yàgg far nga jël moom ko far kii de bool la boo xam ne dañoo seet borom ba sonn gisuñu ko nga far yow di ca tibb ñam di ca añ boo ko seetee gisoo ko nga yaakaar fu ne gisoo ko du tax mu dagan la l'islam day wax ne saraxeel ko ko nga yéene ko yool bi su la wóor ne mën ngaa seet ba sonn borom feeñut nga garde lu yàgg borom gisoo ko su boobaa da ko koy saraxeel yéene ko yool bi soo ko ko saraxalee yéene ko yool bi far bu nag mu feeñ nag ñaara taxaw ne ko féete xool yool bi ta nga warlul ko su ne man gawuma yool kat sama bool bi sama bool bi moo ma intéressé jox ma ko danga koy wutali bool bu toll noona te yow maanaam nga féete xool yool ba lislaam wax kon kam yi for yi ñuy def ak nangam moom gaaw moom yombul de moom gaawul te gis nga jël abbu alali jàmbur jaale ko nationalité ko yonentu bi dagg na ci loxo nit koo xam ne diryanke la muy fatimatu almaxsumiya da daan def di abbu takkaay bu amee xew rek bëgg a wane ak diryanke dem abbu ci takkaay seen ni ko jigéen ñi defee demal ci di mu abal ma ceenam ga mu jël seen nga abal problème gaar la nga dem tayle ko mbaa nga jaay ko ne ko dañ koo sàcc ak nangam ak nangam mi ngi fi ñu ñëw bañ ko xamalee yonentu bi na dafa sàcc day abbu takkaay yi di ko di ko nationalité kenn ku ne ñëw wax ko ko te bañ xoolee lam lam lam lam nationalité ëpp na rubu dinaar yonent bi ne day dagg loxo ba te dir yanke la coow la bëri nitam ñu ne ah famille bi mu bokk ak ni mel dagg loxoom ay bu rëy la nañ dem ñaani yonent bi intervention ñu waaw ñi ko gën a jege ndax kilifa yi bu ñu nekkee ci etaas am na ki ñoo xam ne ñooy escalier kilifa yi sa yonent bi de ki mu gën a rus fonk ko xam na lu mu ko ñaan dana ko ko may mooy usaamatu ibnu saydi nit ku ñuul la ñu dem ci usaamatu ne ko dañoo bëggoon nga tenuñ ci yonantu bi ngir yàlla bu mu dagg loxo fatimatu bi nangam ak nangam ak nangam wax a wax a wax karak ba mu ñëw bokk yonantu bi yonantu bi fekkoon mu toog mais dafa jug taxaw ne ko usaamatu yaa am fit léegi dang may tinu ci loo xam ne yàllaa ko xatte ba pare ni lii lañ ci war a def wasaariqu wasaariqatu faqatahu aydihima faqatahu aydihuma yàlla wax ko pare nga ne ma ko def xanaa xamoo li alagoon xeet ya jiitu woon mooy koo xamee ne nii dafa kan wu suufe bu sàccee lu toll ni nen ab ganaar ñu ne ko ràpp ci kaso gi dagg ab loxom koo xamee ne ni kilifa la bu sàccee milliard ñu mas masal ko ne fii la la bokk fii la bokk bam mu naxasaay mu ne ko maa ngi lay waatal ne man fatimatu mii sama doom wallahi bu sàccoon ma dagg loxom ba law sariqat ban binti fatima la qataatu yadaha loola mooy luwaa luwaa balaa mën a wiir dafay gàccuhu ci ki ko teg gàccuhu ci njaboot ak kiñ ko teg ku muy door a dem door faa dem lii la yonent bi wax ne ko luwaa bi bu tegoon sama kaw ma ko ci bu tegoon sama doom ma teg ko ci kon kii faaba waaye li xew léegi kenn xamul lan la kenn xamul lan la su ko defee kon nag euh, boo abbee li mooy loolu mooy loolu mooy atteeb ak delloo ga buñ la abalee na gore jigéen ñi bu ngeen abbatee takkaay delloo leen ko bu fekkee dafa sànku ci sa gàttañ lu seetal na xayma ja toll nga dem jël ko delloo ko boromam ba mel ni ma yooye nga ko joxoon fa mii mi doomu yonantu bi abboon na sayyidatuna Xafsatu benn bagaan ni ko tëaan ba rëcc toj yonantu bi ne ko an sa bos mu ne ko sama bos a ngi nii mu ne ko demal nga fay ko ko demal nga delloo ko ko delloo ko ko kon tamit bu ngeen abbee paan leen delloo bu ngeen abbee siwa yi de leen delloo bu ngeen abbee ay takkaay de leen delloo léegi nit ñaa ngi bëgg a abbu bay abbu dàll ñenn ñaa ngay abbu bay abbu ay portable waaye jamono ji tamit able portable óorut man ngaa abal portable nit ka jël ca bippe ca wala mu def ca lu ca defuut yow borom portable bi ko abone rek yow lay yoon di teg ci sa kaw jamono ji nit ñi da lu ne day xew jël jël portable ab jàmbur bippi ca numéro ab kilifa la ca xew xew ca fooy mujj tribunal rek kon kenn ku ci nekk portable daal sa loxo sa poos rek waaye di ko abal nit na damay woote damay wuy nangam jamono ji laajatut ko nga toll jamono joo xam ne kenn du xóolu jamono te lu leen cay xew kon nit di jël di jël di jël jël matukaay lu am solo la ci jamono ji kon aaya jàngoog ak abbu léegi mi ngi dugg ci sooratul kawsar su doon ki toftaleeg alquran mi ngi wàcc gannaaw suratul aadiyaat yi suratul kawsar mooy saar wi gën a gàtt ci buñ la laajee gën a gàtt ci alquran mooy suratul kawsar ñetti aaya la soo jëlee saar wi gën a gudd ci alquran mooy suratul baqara juróomi xisib sibla saar wi nag di suratul kawsar ah, yàllaay wax yonantu bi xéewal gu rëy gum ko defal xéewal gu rëy gu ñuy tuddee kawsar boo demee dañ ne kawsar alam la ñeen ña ne wasfu la ñi ne melo la ñi ne tur la moo tax firéem kawsar rek moom kenn ni ko boroom xam-xame wala maaw tafsir yi firée ëpp kawsar lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba mu ëpp fukki ñeen fukki firi soo jëlee ikrama dafa ne kawsar mooy nubbuwatu nubbuwatu gi yàlla jox yonantu bi nga jël ku ñu tuddee xasan mu ne mooy qur'an xal qur'an la nga jël xasan ibnu fadli mu ne maanaam mooy tafsirul qur'an firi miñ firi xal qur'an jëlee ca yonantu ba ca saxaba ya ca taabiina ya ba ca borom xam-xam ya ku mel ni maanaam aboubacar maanaam ibnu iyaas moom dafa ne kawsar mooy saxabaam yu bari yu tedd yi yim daan wax ne ashaabi kan nujuumi bi ayihim miqta ibnu kaysaan dafa ne kawsar mooy islam ñii ne kawsar mooy yëkkati gi yàlla yëkkati turu yonentu bi lëkkale ko turam ci war a fax naa lakka zikraka ñii ne mooy nuurul qalbi ñii ne mooy shafaatul kubra gi ko yàllay jagleel ëllëg kon nun nga koy toppee ñii ne lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba muy ñeen fukk yu wuutee waaye nag boo jëlee kawsar ci baat bi mooy tekki xiw wu bëri rek xiw woo xam ne dafa bëree bëree bëree bëri ba kenn mënu koo lim lu kenn mënta lim ko mooy kawsar waaye nag boo ko jëlee ci firéem koy laaj ne ko waaw kawsar mooy lan mu ne ko ak yàlla moo ma ko dëxal xam na riwaaya wax dafa ne ah, ata niihi laahu fii dafa ne waada niihi laahu yàlla dëxal na ma ko bi dafa ne jox na ma ko mu ne ko nag kaas yañ koy naanee kawsar moo tolloog biddiwu asamaan yi ndaw kaas yu bari kaas yañ koy naanee moo tolloog li mu biddiw yi mu ne tamit ci beneen riwaaya kawsar moo gën a weex meew moo gën a neex lem ku ca naan nag dootoo marati ku ca xas naan dootoo marati boo demee ci riwaayaat yi nag pour dëppale ko dafay am yoo xam ne riwaayaat yuy wane ne avant ñuy jéggi siraat am yuy wane ne dañ cay naan gannaaw buñ jéggee siraat euh, soo demee nag imaamu Qaradaawi ni mu ko ni mu ko toftalee ni mu ko méngalee dafa ne daal démontable la léegi-léegi dañ koy dañ koy monter fii euh, avant ñuy jéggi siraat ñi naan ca buñ demee ba jéggi siraat ñi démonter ko yóbbuwaat ko ca foofa ci xal jaana naan ca moo tax nekkul benn place day nekk fii ba ci kanam yàlla démonté ko yóbbuwaat ko beneen place waaye danga laa kulli xaal ku ca naan dootoo marati amoon na benn góoru nitu yàlla dafa gént rek naan ca ñi ko daan tuddee maam Omar Sakho benn bis rek ñu nandal ko kawsar moom nee na ba ni mu génn àdduna maratut ku ko jox ndox dana la rus rek ne nii tiimale ko gémmañam ba nga koo gis mu lay gis rek ba nga foog ne naan na mu delloo la pot ba kon dégg boo xam ne nit a gént rek naan ca moom maratut kon ku ca naan foo jëm yàlla nañu ci yàlla nandal yàlla nañu ci yàlla nandal kawsar moomu nag li tax yàlla wàccee ko wax ko yonentu bi sababu nusool bi mooy doomam moo génn àdduna di xaasum nga xam ne mooy taawam bu góor bam mu génnee àdduna nag Aasi ibnu Waa'il nag kontaan ca fiiri sanadiidu Qurayshin ya ne ay yonentu jarta noono benn doom ju góor la xamoon génn na àdduna kii kay buy génn àdduna rek mbiram yem ndax ko xamul ndono la tuddee ko ne ab tar la nit ñi dañoo soxor wax loola yonent bi yàlla ne ko inna ataynaaka al kawsar naa la jox borom xam-xam yu bëri ñoo xam ne yëpp sa doom lañ naa la jox ay sahaba yu bëri ñëpp sa doom lañ naa la jox ay taabiina yu bëri say doom lañ danaa la jox maanaam waliyu yàlla yu dul jeexati sa xeet yu say doom lañ danaa fi bàyyi alquran mu des fi ñu koy jàng ña koy jàng say doom lañ yonantu bi mooy baayu ñëpp di baayu xeet wi xeet kooku jirimut kon kooku tumurankewut lim nekk bàyyi xeet wee tax ba mu génnee àdduna soxnaam ya kenn doonu wut leen ndax soxnaam ya suñuy yaay lañ te nit mënta doonu yaayam yonentu rek moo génn àdduna soxnaam kenn doonu wut leen xoolal ba muy génn àdduna sayyidatuna Aïcha fukki at la am ak juróom-ñett booba dundam mi ngi ci xayu mu dem a dem a dem dund ba am juróom benn fukki at ak juróom benn ci dundam mosta toog ak benn góor ci kaw lal looloo tax ndax kat euh, eh, soxnaam yi ñooy yaay jullit ñi ak yaayam kon looloo tax kon kon kooka kay wax dëgg yàlla kon bàyyi ñëpp la kon bu génnee àdduna benn doomam rek lim dese ci ay doom du jeex waaye xoolal tamit ki ko doon wax abtar moom jàpp ne am na ay doom yu dul jeex xoolal lim am ci njaboot ni mu bëree waaye kenn xamul leen ku la mën a limal doomi Aasi ibnu Waayil amut waaye xoolal yonantu bi tay tabaarakallaahu surafaaw yi foo dem fekk leen ñi nekk seen leer di leeral kaw suuf te ñoom ñëpp mu soqee ko ci leer ak Seydina Muhammad yàlla moo tax bëri le amul solo barkeel moo am solo xoolal yonantu bi dafa barkeel juróom ñaari bant la ko yàlla dénk juróom ñaari bant ya ñeent ña jigéen lañ saydatuna Zaynabu saydatuna Roqiyatu saydatuna Ummu Kulthum saydatuna fatima góor ña mooy xaasum abdullahi ibrahim abdullahi mii ak xaasum mi ak ibrahima mii dañoo génn àdduna njëkk ñuy mësuur takkuñ sax soxna waxuma la bay am doom ñett ñële di saydatuna zeynabu roqiyatu umu kulsoom amuñ ngirte lu continuer am na ke ñu am doom ñu amaat doom waaye mujjuñ continuer dafa mujj ngirte ga am foofa kenn rek moo ci am doom yu continuer ba tey ba koo dàq mu yóbbu la ci moom mooy saydatuna fatima kon dama ne bari le barkeel la ko gën yonent bi dafa barkeel loolu la ko yàlla defal moo tax yàlla ne ko kaay ma wax la li ma la jox joxagut ko ko sax waaye yàlla lum dële ak lum def ba pare ñoo xem yàlla du la wax mukk danaa la jox ngay topp ca gannaawam di daw jox ma jox ma am na koo xam ne ni bu la danaa la jox dese nga beneen coono da nga topp ca gannaawam di daw danga ñaan danga ñaanlu ne li ma wax yàlla na ko def waaye yàlla moom bu ne danaa def rek moom jàppal ne def na ba pare moom lay wax si moo tax ñun yàlla ataynaaka jox nañ la joxagut ko ko waaye li taxaquqi wuquuhi mu ne innaa naka ñun yàlla ka jox nañ la alkawsara kawsar léegi nag fa salli na nga sax dàkk ci julli li rabbika ngir sa borom am na koy julli te yàlla taxul yow del julli te yàlla tax wan xar na nga loj li rabbika ngir sa borom del rendi te yàlla tax am na kuy rendi te yàlla taxul ina sha'ni aka naka aji bañ sa moom dong al abtaru mooy ki njadde njadd abtar mooy gàtt boo xam ne gen ba dafa dagg loolu la ñuy wax abtar waaye nag mu ngi ci namm koo xam continuer du doo xam amul jeexital ci ay ci ay doom ay njirteel tey mag ñu baax ñu fi yaakaar yëpp seen ngir te yaa ngi fi koo ci lim lim ne maanaam mi ngi soqee koo ci diw boo jëlee Cheikh na Ahmed Tidiane ba tey yaa ngi koy limal ñu fi nekk maam Abdul Qadir Jaylaani yaa limal ñi fi ne maam Limaamu Laay yaa ngi koy limal ñi fi ne maam Alaaji Abdoulaye Niass maam Serigne Touba Malik koo ca lim ne diw sët la ci moom mbaa sa taat la ci moom mais Aasi ibnu Waayil mi doon ayibal yonent bi amul loola huwal abtar moo tax yàlla xasru ko ci moom su ko defee kon nag ne na ko jullil ta sa borom tax am na ko julli ta yàlla taxut waaye di te yàlla tax wan xar li rabbika tey nag bari na ñuy rendi te yàlla taxut ñee ngi di tuural ñee ngi rendi géej gi ñee ngi rendi lu kenn xamut waaye wan xar li rabbika sooy rendi ab gàtt na yàlla tax bu fi nekk tamit di saraxe saraxe goo xam ne ni ba nga koy saraxe ab gàtt di ko rendi wëndeel nga ko sa bopp bi juróom-ñaari yoon door koo wëtal gàtt bi day dee loolu ki ko ki nga ko sarax bu bopp ba wooyee fee day dee sax na ñoo xam ne ba laa sarax ab gàtt fu ne dañ ko fa dugal dañ ko wëndeel a wëndeel a wëndeel fu ne ñu jaar ko kon yàlla ne nañuy rendi te yàlla tax bu ñu rendi dara te fekk yàlla taxul inna shani'aka mooy suratul su ko defee saar wi tegu ci mooy qul yaa ayyuhal kaafiruuna yàlla wax yonantu bi ne ko fekk lii sababu sol bi xéeféer yi def délégation ñëw ne ko nga yori yàlla ñu yori yàlla dëgg-dëgg dafa xaw a metti léegi daal nañ bokk ñun ñëpp jaamu suñ yàlla ji ba déwén ci ëllëg sa ñun ñëpp ñu bokk jaamu sa yàlla ji ba ren di déwén ñu comparé ñaari at yi bu ñu ci gën a jig bu ci gën a neex ñu xam ne kii moo ko yor ñi bàyyi koo ko fekk kale comme waxi dof la su ko defee nag yonent bi nag yàlla ne ko tontul ma xéeféer yi xéeféer yooyu nag ngay tontu mooy xam na ñu nekk seen biir ñu nama tuub waaye ñi nga xam du duñ tuub mukk laa wax nag ñoo moom wax ji nga xamal leen ne li nga xam ne mooy li teew si man duma jaamu yàlla ji ngeen di jaamu ci lu teew parewu leen tamit pour jaamu yàlla ji may jaamu ci lu teew ci liy ñëw si tamit man duma jaamu yàlla ji ngeen di jaamu ci liy ñëw si ba fay àddunay tukki yéen ñii xam ne du ngeen tuub ba yowmal xiyaam parewu leen tamit ngir jaamu yàlla ji may jaamu ñëw si moo tax kon euh, dañoo jàpp ne takkaraar la ndax la abudu ma taabuduna wala antum abiduna ma abudu dafay niru takkaraar waaye benn bu ci nekk la muy firi ca jamono ja ak moromam duguñ benn benn bi day tegtale luy luy jublu si benn bi tegtale luy ñëw ci kanam xam nga dàq ñaar la man ngaa dàq li teew fekk dàqoo ci kanam duma ko def bokkut ak duma ko def mukk loolu duñ benn waaye boo ne duma ko def mën nañ caa déggee ne mën naa xam nga def ko ci luy ñëw waaye doo ko def ci lu teew rek waaye boo ne loolu ngay ne may propos kooku moom jeex na ba ba àdduna bi tukki doo ko defati yàlla nag loolu la wax yonent bi ne ko waxaal ak ñooñu ci loolu ne leen yàlla ji ngay jaamu ñoom pare wuñ ngir jaamu ko léegi gannaaw ah, gannaaw ëllëg suba ëllëg tamit bàyyi wuñ xel ngir jaamu ji ko loolu lay wax seeni ci xul yàl moo tax mu ne qul waxal yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ayyuhal kaafiruna xéeyéen xeetu xéeféer yi laa abudu duma jaamu ci li teew maa taabuduuna yàlla yi nga xam ne yéen a koy jaamu ci lu teew wala antum déet yéen tamit aabiduuna ngeen di maa aabudu yàlla ji may jaamu ci lu teew wala ana déet man aabidun may aji jaamu ci luy jublu si maa abattum li ngeen li ngeen doon jaamu yàlla ji ngeen doon jaamu ci lu passé wala antum déet yéen aabiduuna ngeen di jaamu ci luy jublu si ma la nga xam ne aabudu maa ngi koy jaamu lakkum aji nekk la ñaal leen diinukum seen caaxaan yi ngeen tuddee diine wali aji nekk la ñeel ma diine diine lislaam ju wér ji diine duhun ñaar waaye moo tax da nga ne làkkum diinukum jàpp leen seen diine jàpp seen diine déeréet inna diina indallaahi lislaam diine benn rek la mooy lislaam kon lee ñoo ko tuddee seen bopp tuddee ko diine waaye fekk ay caaxaan jàpp leen seen caaxaan yi ngeen tuddee diine wali ngeen bàyyi maag sama diina ju leer ji muy inna diina indallaahi lislaam ida jaa nasrullahi mooy suratul fathi yàlla nga koy wax nag di wax yonent bi ne ko yaa ngi ci sàbbaal dëgg la waaye gën koo yokk yaa ngi ci jéggalul sa borom sa xeet wi waaye gën koo yokk bis boo demee ba ma defal la nasru arab yëpp nga not leen fatxu màkka am nga hubbi màkka waaye waaye su boobaa nag la nga doon ñaan lépp yàlla defal na la ko kon nag yow daal jaa yàlla di ko te di ko sàbbaal ndax li nga bëggoon moo la ko defal ku yàlla dimbale ba toroxal la say noon te loolu laal defal yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonentu bi ñu ne ba muy génn ak àdduna presque arab yi yëpp wommatu nañ dugg ci lislaam dugg nañ ci lislaam ba muy dem nag bàyyi fi aboubacar rak mu doxal mission ba ñaari at yaag weer ya Omar ibn ñëw def fi fukki at ak dara commencé nag toj dëkk yi ba l'islam di dugg si Afrique yi suñu Afrique yi dem a dem Ousmane ibn Affan ak noona yooyu yëpp nag lislaam gën di tasaaroo yàlla na ngeen sax dàkk di sàbbal seen borom ci xéewal gu réy gi mu leen defal kon tey fu mu ne hegg nañ fa lislaam nekk na waxambaane woo xam ne wu dëgër a dëgër dëgër la ma ngay waaxu ci juróomi continent yi ci àdduna bi yëpp kenn ñëmul koo tappaas buñ ko buñ ko ñemee tappaas rek ci suñu yaafus la waaye niñ war a mel suñ ko meloon kenn du kenn du kenn du kenn du tappaas lislaam waaye nag ñoo mel nuñ war mel ba tax tamit tey ku ñu wër toon a yab yab ñu kon su boobaa nag buñ bëggee dindi yabeel ga nañ defaraat suñ toogaay sensé suñ comportement ak suñ melokaan waaye kiñ kiñ jox li gën te mënoo jox nañ ñu li kon buñ gënu rek ci ñun la moom lay wax si nii nag fatxu màkkataag la ca xewan wax noonu nañ ci lu bari euh, ca Tuuba ak Abbas ga ba muy gàddaay yonent bi dajeeg moom ne ko foo jëm mu ne ko may gàd may gàddaay mu ne ko déedéet yaay kii mujj gàddaay comme li ma nekkee mu ak yonent yi ndax kat laa hijrata baadal fatxi ndax fatxu mooy mooy mooy munaa su ko defee nag euh, la ca xew mu yóbbu Abu Sufyaan ba mu tuub jébbalu ci yonantu bi yonantu bi ñam setti woon ne bu ñu leen fekkee ci ridoy Kaaba ga nañ leen rey muy fukk ak ñeent waxoon nañ ko waxoon Abu Sufyaan ndax dafa bëgg daraja ku dugg këram rek mucc nga ak doole ja yonantu bi amoon ci seen kanam ñoom ñëpp sukk ci kanamam ñun mu ne leen waaw lu ngeen foog ne moom laa leen di def ñoo ngi ne ko yow de mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax mu ne tey ma wax leen la yusufa waxoon doomi baayam ya aqulu ma qaala axi yusuf la tasriba alaykum al yawma yaxfirullahu lakum kon kooku mooy yonantu bi mooy koo xamee na nii bu jekkoo du jekkali waaye bu jekkoo dafay jéggale li ëpp ci ñun nag buñ jekkoo jekkali moo tax jekku jekkali du ngóora waaye jekku jéggale piir jekku ay kàddu yu ñaaw yuñ la wax nga mën a tontu noppi mbaa nga gis ko ci journaux yi mën a tontu noppi mbaa nga mën a dem ci média yi am occasion wax nga noppi ne bàyyi naa koog yàlla ñu def la loo xam ne am nga doole am pouvoir mën a fayu nga ne jéggale naa ko ngir yàlla ndax doole yàllaa ko am te daf ma koo dénk dama cee war a yërëme yàlla ne na kooka mooy ki baax waaye jekku jekkali baaxul de waa ji daf may fontoo tey ma xam ne duhuma moromam li muy jaay lépp tey ma jënd ko te la muy jaay dara baaxu ci yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel <laughs> jar na bàyyi xel léegi nag saar wi da nga ko commencé boo ko bëggee dégg da wax ne fa sabbih nanga sax dàkk ci sabaal bi xam di hamdi rabbika mbir mu ngay làmboo sant sa borom wastaghfirhu saxal dàkk ci jéggalu ko innahu naka moom yàlla kaana naka jekk tawaaba nang waxaa koon tuub la kañ nga war a def lii nag isaa jaa boo xamee ne dikk na nasrullahi ndimbalal yàlla wal fathu ak fathu màkka raa da ko defee wara a ayta nga gis naasa nit ña yadduqulu na ñuy tàbbi fi diini ci fi diin laay ci diine yàlla ji afwaajan mbir mu ñu def ay kuréel waaye waaye bis boo defee lii na fasabe bis bi maanaam bis bi rabbika sabi bi hamdi rabbika kon su boobaa nag jot na sa saxal dàkk ci sàbbaal gu làmboog sant sa borom jéggalul ko sa xeet yoo xamoo bàkkaar bis boo demee ba nasrulaay ñëw nasrulaay ñëw na sa noon yëpp mokk nañ tey yaa doon takki xare xare ji jeex na ci yow waaye tamit mbooloo ma doon contre ñëpp ñëw nañ ñaara fi ne newoon ndax ñëw moom ñaara koy waral benn xelu ñëw wala xelu ñëw rek waaye yonentu xoote ñëw ta ñàkk ñaar rek a fi mën a xam xelu mbaa xelu yow nag yàlla dimbale na lañ ñi xelu ñëpp xelu nañ ñëw ña fi nekkoon tamit ñàkk xel yëpp mujj nañ xelu kon nag su boobaa fa sabbi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba kenn du sayyiduna muhammad saar wi ci laay tëjee muy maanaam sóoratul sóoratul masad su ko defee saar la woow mi ngi wàcc ci abi lahab bàyyi taxu yonantu bi la kon bokk taxut a bokk jege taxut a jege baay moom mi ak baayu yonantu bi abdallah ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn yaay waaye ànd ak lii lépp moo gënoon a bañ yonantu bi ci kaw suuf moo tax bañ koy rey sax dafa wax ne bala maa dee may leen ma ba bàttali ñaari baat lan la mu ne fii may jógee koo ci àdduna bi ñi fi nekk ñëpp mu Muhammad laa ci gën a bañ fa ma jëm xaw ma nu mel ak ñi ma fay fekk waaye ñu ma fay fekk ñëpp moom laa ci gën bañ la ma doon bàttali jeex na baax na man man ngeen maam jekkali ànd ak lii lépp bëggoon na yonentu bi nag keroog ba yonentu bi juddoo arab dañoo bëgg doom ju góor yonentu bi juddu a jaamam ba su way batu su way batu muy jaariyatoom ba ñëw ne ko sa rakk jade di abdalaayi soxna sam bàyyi woon mu nekk jigéen mucc na ba mu muccee doom ja góor la ba mu nekkee góor man mii nàmpal naa ko mu ne ko xibaar bi ma jox maa ci bëgg a bëgg ba bis ni ki goreel naa la yàlla du neenal jëf moo tax bisu gàmm gu jot moom moo ma bëggoon ci juddoog yonantu bi ba goreel ci ak jaamam guddee gàmm gu jot dañ koy goreel ci safara di ballal soow ci ay baaraamam mu koy macci ngir li ko ab jébéeram joxe woon mu bég ca moo tax dafa génn àdduna rakkam gis ko muy Abbas koto nu sa borom def ak yow mu ne xaw na maa rey ci mbugal luy sa xalaat ci xeeti mbugal teg na ma ko waaye nag bisab gàmmu dee bis bu ñëwee dañ may génne ci tuusu safara di balal soow ci sama baaraam yi foo ko jëlee mu ne bég gi ma ci bégoon ba goreel ci sama jaam looloo waral maanaam yàlla goreel ma ci safara kon yaakaar naa buñ ne gàmmu bi daala kenn waru koo def abi lahab d'accordu ci ma ne abi lahab du ki d'accord moom kooku moom bu sañoon bis yëpp di gàmmu kon mawlidun xafafa al azaba an il ammi abi lahabin man daawu saqaaw kooku mooy kon baax na abi lahab moomu lay wax moom lay yàlla di wax ne tabat yàll na perte tabat yàll na torox yaddaa abi lahab jëmmi abi lahab ja yëpp waaye wa tabba torox na sax arab day waxee loolu waaye diw yàll na dee dee na sax waaye diw yàll na xalaku waaye xalaku na sax diw yàll na torox waaye torox na sax moo tax tabat gu njëkk ji maanaa ñaan la su ko defee moo tax nag geneen gën a nekk xabariya nga ne nag bu ne yaddaa abi lahab ñaari loxo ya waaye jëmu ji yëpp la ca waaye ñaari loxo dafa bokk ci li gën a tedd ci nit lu bari mën nga koo ñàkk di ko defal sa bopp waaye bis boo ñàkkee loxo loolu lay defati dañ la koy defal ku ñàkk loxo fooy sëlmoo kon nag loxo limu mu li muy jariñ ci dundak doomu aadama néew na yeneen cër yu koy jariñ moo tax yàlla jël ñaari loxo ya rek waaye ñaari loxo ya tamit jëmu ja yëpp la ca namu mooy tuddee lépp rek turu leen moo tax mu ne kon nag yàlla na abi lahab xalku waay waaye xalku na sax arab day waxee loolu ba liy njëkkee wàcc nag muy ko li ma xam ci alal fa foogoon ne alal mooy très torox fekk na kuy xewoo ci ñaar fukkee ne étage ta moo gën a torox alal terewut a torox kon alal terewut a torox ñàkk alal terewut a tedd mbir mi newut ca loola alal lu la génn la la lay toroxal la lay tax nga tedd mbaa nga torox ci sa jëmm ji lay ne ñu installé ko du ca génn waaye alal lu la génn la te mooy àndandoor bi gën a a di mooy àndandoor boo xam ne bala laa jariñ dafa teqalikoog yow moom feeg yéen a ngi ànd du la jariñ tey boo fi xiifoon bay bëgg a dee yore 10 000 francs ci sa poos bi feeg ma ngi ca poos ba boo bëggee maanaam mu jëriñ la rek na teqaliko génn sa poos bi nga ne ko dema génnal ma ceeb kon teqalikoo nañ mooy kon àndandoo bi gën a goree di bala laa jëriñ rek teqalikoog yow waaye feeg mi ngi ci yow du la jëriñ dara moo tax tamit boo dee mooy njëkk a teqalikoog yow yaa ci sonnoon tabax kër gi mu nekk étage nga jënd 4 x bi def lu nekk ah dee na nag kër gi ne fen laa demut du ma la gunge de booy dem demal yow kenn yaay génn ah ñi génnee la ñi wàccee la lal bi nga jëndoon yàlla bu mu nekk lalu dubul yi rëy yooya ñu jékki-jékki xenoo la gé wàccee la lal ba ki gën a am xel moo ñëw ne waay ah gars yi ñëw wàccee la lal ba gis montor ba ba doon kii ñu ñu tekki montor ba portable ba ñu ñëw nangu ko bëri na sa dee ki ko yëgee mi ngi ko yegee ci sa portable man waaye dama ko xoo ba sonn mënu ma ko mënu ko gaañu na di moo tax nga jot ma xam nga portable gore wut de billaahi bu gore woon boo deexee mu dee montor bu gore woon boo taxawee mu taxaw waaye ngay taxaw muy continuer dox rek di jot mu sone une heure jot mu sone portable ba nga muy continuer dem rek su ko defee ñi ñi wàccee la sa lal bi yóbbu la ca wana wa tekki montor ba tekki maanaam te porta yére nga soloon ak nu mën a mel ñu summi ko jël benn darab sàngee la ko dem nga ba ci kanam xajatoo ci kër gaa yi ne morgo ba ñu dem ca morgo ba ku ñëw ana waa gi defar nañ ko kenn ku ne ana néew bi defaraguñ ko rek moom daal balaa gaa yi xam jàmm nga dem ca biir bàmmeel ya rek xajatoo ca morgo ba dugal nañ la ca oto nga fi yoroon mu rafet lool nga ne kenn du ci dugg sama man kenn rek tey ci oto yi soble ya lañ lay dugal oto ya doon sëf soble ya ci la dugal néew yi su ko defee tamit yóbbu la ca xajatoo ci kër gi xajatoo ci dëkk bi dañu dañuy mujj génneel dëkk ba foo jëm ca armeel ya nag maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab to di naan sama alal jee nangam ak nangam da ngaa xamul rek alal terewut a torox ñàkk alal terewut a tedd yàlla ne torox nga danga nga jaar safara soo xam ne ngay tàkk du ma ci xem yàgg sa jabar ji mooy kenn kuy dund ku yàlla annoncé ne ko safara nga jëm ci aw saar waxuma yow mais yàgg sa jabar ndax mbon goo mosoon a nekk sa jabar moo la ciy dimbale ummu jamil di mbokkam abi sufyaan te daan xaara kaar ba guddi jot mu jël fóotit mi jël dég yi te maanaam sànni ko ci yoon wi yonantu bi jaar pour bëgg mu mu jam ko yàlla xatab xamaalatul mooy kii taxan ay dég taxaari dég yi yu mel noona ak i ay xeer di ko sànni ci mbedd mi yonantu bi jaar pour bëgg maanaam mu jam ko ndaw ku soxor waaye koo xamee ne ni day gis li ci gannaaw waxuma li ci kanamam fu koy dégg di jame kuy dégg di muslu kooka dégg du ko jam bu ko dégg gisee moo koy muslu su samuy dox sama ngay muslu ci moom bu fekkee mu dëgër ma nga nooy bu fekkee mu nooy ma nga dëgër ne su ma nekkee sama melokaan bi léegi tey ma fakkastal ko dem safara kooka loo ci sa kaw lay tàbbi moom mii bañ na yonantu bi mu ne ah, fexeel naa ko nu ne mënumaa am ko damay feebar feebarlu li ma koy bañ bañ mënta tànqam lu kenn gas kàmb gu mag ci buntu këram lal ab basaam toog ne leen dem leen wax Muhammad ne ko bàyyi ma feebar mu ñëw seet si ma yonentu beeg mbaax ga ndeysaanam mu jënd ay sëritéem ñëw topp ko def lam def ñëw nag ne ko maa ngi lay seet si di ah Jibril ne ko lii ñi lal fii de kàmb la de teggi ko de mu teggi ko teggi ko rafet daa di ñëw papa mbaa yaa ngi te ne ñaanal ko lamb poosam lam nekk ci ay sérité jox ko ko mu ruusa ruusa ruusa ruus ba fàtte kàmb nga ne ca mëlëb dugg ci biir di koy gunge luñ ko fa bëggee génnee du sotti luñ def sottiwut ci la mujj yooxu ne ki ma gasal kàmb gii li ma koy bañ bañ bu ma génneewul mu nekk sama bàmmeel yonent bi yurundu ko mu xool ko rek mu jël pax mi ne ko papa jàppal mu jàpp mu henn ko génnee ko ca pax ma ndax walaa yahiqu ko say illa bi ahlihi kon lu jar a bàyyi xel moo tax sama borom ne tabbat yàlla na torox yaddaa abi lahab jëmmi abi lahab jo yëpp tabba torox na sax ma ax naa jëriñut anu walis ko maaluhu alalam ja wa kasaba ak lim fàggu ci ay dara li wér tahóor daal sa yas laa xal si njaar naaran safara zaata lahabin bay borom ak jalañ wamraatuhu ak jabaram jan jabar mu ne xamaalatul xatabi kay xanuha koon matt ak dëg ya di ko teg ce yoon wa boo ko defee xamaalatu xamaalatal xatabi mbir mu muy nekk taxanaa koon dëg ya di ko teg ca yoonu yonantu ba fii jiidiha aji nekk la ca loo sam wa xablun buum min masadin goo xam ne dañ koy raw ca buumi safara ya ñu ne xablun min masad àdduna la ñuy ne àdduna ab safara la dafa daan dem ca àll ba di taxan sayi dëg di ko takk ci ak buum bu ñëwee di ko tasaare ci yoonu yonantu bi bis nag na mu jëlee say wa noona takk ko noona rek ne ma ngi koy takk rek buum gam doon takkee matt ma takk wu ci xam ga xerande ko mu dee boo lëgee bu demee safara tamit buumu yàlla seen ya lañuy takk ci dox ga di ko diri bu bëggee génn rek ñu xëccaat ko mu ñëw ci digg safara kon hablun min masadin kon lii mooy saaru tabat ci leen nam mu ngi mel ni nag foofu la ñuy yeewal insha allahu rabbi sang bu tedd bi Seydi Mouhamadul Amin suñu waajur mooy ñëw ci kartanal yàlla talaata mottalil ñu firi mi ixlaas suratul falaq suratul naasi mu nekk am njàng ci ñun ñëpp njàng moo xam ne daara ji dañ ca yokkoo waaye intellectuel tamit dañ ci mën a yokkoo kon yal na yàlla yóbbuñu ca te moom ci boppam tamit yàlla dolli ko kartan dolli ko wér yàlla dolli ko te dooleel ko kilifa gu baax gu mën a joxe cër séddu yomb na waaye séddale moo jafe tey ba gannaaw bi ko yàlla dimbalee mu séddu nekk na koo xam ne dafa séddale li ko yàlla jox kon yàlla bu mu teqali ko teraanga àdduna li ñu fi addu li ko deree ci baqara ba ci tey fii ñi teg tey moo ñu may occasion bi tey ñu ngi koy addu am na ñu nekk ca kaso yi di ñu déglu am na ñu nekk ca hôpitaux yi di ñuy déglu am na dëkk yoo xam ne sax tafsir bi ñoom dañuy far def ko ci seen rajo yi jumaa ja dëkk ba yëpp di ko dégg te loola lépp aw yiw la yàlla na ko yàlla def leer ñeexal ko ñeexal nga ñun ñëpp ñeexal ñoo xam ne tamit ñoo ko doon topp fu ñu mën di nekk ci àdduna bi yàlla man na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def sant bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci tafsir bi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi mën naa wax na ci juróomi continent yi ci àdduna bi yëpp ñu ngi topp tafsir ñi nekk ci oto ya ña nga ca ñi ci bureau yi ña nga ca ñi ci marché yi ña nga ca suñ mbokk yi ca kaso ñi ci hôpitaux yi ña nga ca jigéen ña ca marché ak syndicat ya ña nga ca kenn ku ci nekk yang ngi cay topp di seet loo cay leerloo sa diine lépp luñ ci yàq yàlla nañu ko yàlla jéggal te yàlla mi nga xam ne moom rek rek mooy ki xam yàlla nañu ko yàlla xamal lépp loo xam ne wax nañ ko mu nekk sawaab yàlla na ko yàlla nangu te gërëm ko moom tamit ci nim toll ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ko leer ñeexal leen ñeexal ñu ñeexal mboolem adduna bi lool ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen hitte yëpp bët bu set rek su ñëwut ci tafsir bi jàpp nañ ne ñëwuñu danañ dagg seen soxla yi di ñëw kenn jiituwu ci Cheikh Ahmed Tidiane Thiam at mu jot mu bàyyi ko Amérique dagg billet bu ñëwee topp tafsir ba ba mu jeex mu ñibbiwaat loola xam nga ni kenn amut fayam kon yàlla am fay yàlla na ko yàlla fayal boppam ci barkeb Seyduna Muhammad sallallahu wa sallam ñi nga xam ne ñu ngi koy topp buñ foo leen gisee gis ñu tabaarakallaahu euh, bëlëb ndaw moom mii fu ngeen ngi gisee gis ko ci tafsir bi Abdou Aziz Dia Mouhamed Saloum Niass suñu rakk foo ñu gisee ci tafsir bi gis ko Seyduna Omar mosuñoo teqali ko ñun benn jamono nga xam ne heure bu nekk tamit ñi ngi ànd ak ñun ci tafsir bi soxna Ndey Busa moom tamit jigéen la goo xam ne kenn mënu ko ci tafsir bi guddeeg bëccëg heure bu nekk tamit mi ngi ñëw di ànd ak ñun kon am na ci ñoo xam ne daal ba ma commencé ba léegi yëguma fu ñu tardé ñooñu tamit bu ma tay tay temps bi mayoon danaa jaar tour par tour ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp maanaam ñu ngi leen di gërëm euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën a fay yàlla yàlla fayal leen boppam tey nag tabaarakallaahu plateau bi dafa saf daa euh, Cheikh Malick Cissé di doomu Serigne ba Cissé mi ngeen xam ca Jurbel di jàngalekatu alquran ca njaareem nekkoon xaritu ñëpp mais boo demee néegam photo yi ñëpp la fa def boo waxee mu ne damaa bëgg ku ñëw gis fi soppeem te loola mooy mbaax kon bu doomam ñëwee fii tey ci tafsir bi ñu ngi koy sagoo di ca bég lool sëriñ Seyxuna Mbàkke di doomu sëriñ Murtala Mbàkke mi ngeen xam mujahidul akbar tasaare ay école ay daara yóbbu ko ci réew mi yóbbu ko ba bitim réew fu moodu moodu yi nekk mu fekk leen fa seen doomi di ci jàng bala ñoo sànku moom tamit doomam a ngi nii toog ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm mu jotal ñu suñ nuyoo lépp ak nuyoo kilifa gi ci kër xaadimu rasul si Ahmad Bamba tabaarakalaaw sëriñ Abdul Ahad Diouf maa ngi ko doon tooñ sax pour mu ñëw firi fii moom tamit borom xam-xam la macha allah dagg yitteem ñëw ñëw ñëw fekkee si tafsir bi alaaji Keeba Njaay moom tamit buñ bu fi nekkee mi ngi fekk mi ngi topp tafsir bu fi nekku tamit ma nga këram di topp tafsir bi ñu ko gën a topp moom ci boppam ci la bokk sëriñ Abi Ñas fu ngeen ñi gisee tamit gis ko di kilifa gu woyaf ku baax yàlla na yàlla gën koo dimbale moom tamit mi ngi topp tafsir bi tabaarakallaahu Abdoulaye Sakho Mouhamed Cissé Male moom tamit di borom xamxam xam tabaarakallaahu maa ngi ko gis ti moom tamit ci tafsir bi Aliou fay douanier moom tamit mi ngi fi ànd ak soxna yi bàyyi ko Kër Masaar dagg seen yi te ñoom tamit ñëw fekk si tafsir bi yàlla na yàlla nangul ñëpp ci barkeb Seyduna Muhammad yàlla na yàlla gërëm lépp defal ñu tawfiix ak taysiir boole defal ñu naataangeeg barke sant bu baax techniciens yi tamit sonn nañ ci jamono gi nekk ñu ngi ñu ngi cadré sonn ci liggéey bi ba ba mu rafetee nii taaroo nii maa ngi leen di sant tamit ki nga xam ne nag luy njig mooy njaag te mooy al oustaz Hassan Diouf muy toppatoo émission yi di ko rafetal nekk ku baax ku oyof tabaarakallaa moom tamit yàlla na ko yàlla gën a dimbale te gën koo taxawu kon nag ñu leen di jox rendez-vous incha allahu talaata muy mardi ñun ñëpp ñu ñëw bokk fekkee si tëjte gi suñu sang bu tedd bi di ñu ko defal Seydi Mouhamadul Amin yàlla ñu ci yàlla yóbbu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.